pajum cosaan ak aada di al oustaz Mamadou Lamine Dramé yaakaar naa dootuñu leen ko présenté bi réew ak biti réew al oustaz Mamadou Lamine Dramé ngi lay wax asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah. alhamdulilah lasi anhamana bil islam wa radi lana islaama diinan wa nahnu radayna billahi rabban wa bil islaami diinan wa bil qur'aanil karimi imaaman wa bi sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa nabiyan wa mbokki Sénégal ñu ngi leen di siyaare di jiital ci nuyu bi nag suñu kilifa diini yi di nuyu itam suñu kilifa aada yi waaye itam di nuyu suñu fajkatu cosaan yi ak fajkatu tubaab yi ñu ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. delsewaat nañ fii tey ci Jammj Infos pour waxtaan ak nit ñi ana lan moo xew ci àddina bi ana nan lañ war a def suñu loxo droite ak suñu loxo gauche ak fan lañ jëm ak lan la ñuy toog ba nekk ci jàmm am jàmm am wér yaram am salaam bisimilah. jërëjëf al oustaz Mamadou Lamine Dramé tabarkalla ci nuyoo yu sell yu tedd yi le tabarkalla al oustaz mu fas yéene rek waxtaanee 32 euh, jàngoro yi 32 jàngoro yi nag euh, daanaka yi xew ci jamono waaye nag ñu tànn ci ñeenti jàngoro yi nga xamante ni faw ñu mën koo yaatal ngir askan wi mën koo xam yooyu yan la. ok jërëjëf alhamdulilah jumlatul muxtasara baat la boo xam ne nii gàtt na mais gudd na mooy bu ñu defee suñu recherche ci àll bi ci tool yi ànd ak kilifa yi euh, def la ñu war a def. kool kasu garab doomu garab reenu garab meññetu garab tontuuru garab sungufu garab lépp bu ñu ko xoolee kilifa diine yi jàngal ñu ko mooy kilifa yi ngeen xam tey ñooñu jur ñooy suñu baay ñooy suñu yaay ñooy suñu yaakaar ñooy suñu tey ñooy suñu suba ñoo ñuy jubbanti ñoo ñuy joxoñ gannaaw bu ñu amee loolu nag sëñ Muntaxa ñu ngi lay siyaare siyaare jàmm ji yëpp di siyaare Sénégal yëpp di siyaare suñu mbokk yi ñuy déglu ndax du gën a mën a wax du gën a xam waaye dafa fekk kenn ku nekk lay sa liggéey ak point ba nga xam moom nga suivre ca daara ja loolu rek nga mën a feeñal. jàngoro yi nag bëri na dem na ci 114 yoo xam ne nii e, hôpitaux yi nga xam ne nii xam nañ ko ci àddina bi ñu ngi koy tawat muy téeméeri jàngoro ak fukk ak ñeent yoo xam ne àddina baa ngi koy tawat. waaye yi ca gëj a gën a sonal nit ñi gën a xoj a xoj nit ñi gën a Euh, métti ci yaxu doomu aadama yi ak ci deretu doomu aadama ak ci dundu doomu aadama bi muy góor jigéen mag ndaw mooy 32 yi. am na bu ñuy wax estomac euh, yëngu-yëngu dënn la dina xer ñeeñ dina tàngal dënn am na ulcère ci biir bi la xoosu xoosu góom góom futu futu néewi néewi am na animé deret buy manqué am na tàngat jàngoro bu dugg ci biir yaramu doomu aadama te xamuñu lan la waaye itam am na kàttan bi nga xam ne ni fii ñuy wax ak yow tey ñoo ngu ci mille deux cent quarante et un yoo xam ne ni kenn amu ci quarante ans kon gis nga loolu du jàmm tey nag bëggoon nañu góor ñi am kàttan ndax njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabootu kalifa diine yi gën a takku gën a bëri ci góor ñi ak ci jigéen ñi waaye gis nga ko fi mu nekk nii xelee bi nga xam ne ni am na fukki at ak juróom muy tawat kan kàttan xale bi nga xam ne nii am na fukki at juróom dugg ci néegu seeyam yéegul dara ci bànneexu sëyam waaye loolu dinañ ko leeral ci kanam ndax garab yaa ngi fi am na itam beneen bu ñuy wax asma muy wàllu bopp am na paralysé ji nga ko janga jamono bu ñuy toll loxo yi tànk yi ndig yi bët yi bopp yi lépp bañ na am na itam li ñuy wax siti dinañ leen ko lal ci kanam am na itam wàllu sibiru am na sañe toog rek di génnee deret am na tension am na cancer muy góomu biir am na itam saqa su si am na itam avortement gis nga jigéen ñi léegi avortement ni mu leen yombee benn weer ñaari weer ñetti weer ñi ne euh, ëmb ba yàqu na loolu itam lan moo koy indi ci wàllu ñam yi ci wàllu lekk bi ci wàllu naan bi ci wàllu liggéey bi dinañ leen ko leeralal ci kanam am na itam lu ñuy wax saan nga xam ne li ñuy lekk jamono bi ñu toll li Amérique di dundee ak li Sénégal di dundee lépp benn la yàq na suñu deret yàq suñu ndox yàq suñu bët yàq suñu yax am na itam li ñuy wax hémorroïde moom itam noonu la moom mooy picc kajoor nga xam ne biir bi dina seere biir bi dina jooy mën na génnee taab ci suuf di génnee dëtt waaye mën na lor doomu am na itam saw boo xam ne nii day faral di bëri wala koo xam ne ni sawam du ñëw am na jabet am na pays am na Euh, prostate am na méttitu biir am na rhumatisme am na fibrome ak régal bi nga xam ne nii dafay faral di tardi di taxaw wala muy gaaw a dagg te jigéen ñi waroon nañoo toll ci cinquante trois cent régal bi doog a dagg waaye gis nga loolu amatul léegi. ci nga wàllu deretu euh, wasin ku wasin balaa bis bee delsi deretu mbasin bi dagg te waroon naa am fukki fukki fan ak juróom loolu ban garab moo koy réglé am na taxawaay ci góor am na taxawaay ci jigéen waaye itam méttitu bañ méttitu borom bopp wala méttitu bët yooyu yëpp mooy nekk fan fanweeri jàngoro ak ñaar yoo xam ne al oustaz Mohamed Lamine Dramé fédération de tradipraticien de santé du Sénégal mu ngi koy siiwar fanweer yooyu nag sëñ Mountakha génnee nañ ca ñeent génne nañ ca kattan génne ci siti génne ci saan génne ci émurit ndax ñeenti yi mooy yi nga xam ne mën na lor nit ki tey tey tey tey wala suba suba ba mu xojo gonde dootu nekkati nit njaay bisimilah. muy la am solo mbokku téléspectateurs yi boo leen ñu teewlu rek ci 32 jàngoro yi waaye tamit ak euh, ñeent yi nga xam ñoo xew ci jamono yi nga xam ne tànn ko ci al oustaz dañuy ñëw nag ci wàllu kattan kattan moo mel ni am na ay jafe-jafe bu ñu waxee néew kattan euh, gis nañu kattan goo xamante ni bëri na ay jafe-jafe yu am ci biir yooyu yan jafe-jafe la ak ñaat façon jafe-jafe lañ ci mën a euh, lim parce que liñ jàngoon ci mag ñi mag ñi ngeen baal ñu ci wax ñi daan nañ dundu am téeméeri at wala téeméeri ak ñaar fukk wala téeméeri ak fanweer te dañuy yore seen benn jabar ñaari jabar ñetti jabar di dem ci tool yi di dem ci jàkk ja di dem ci xew yi te duñu am benn problème ci seen wàllu yax ci seen wàllu deret ci seen wàllu kàttan waaye gis nga léegi mi ñu ci mille deux cent quarante et un personnes yoo xam ne kenn amul ci quarante ans mënul yore benn jabar ku yore mënta ku mënta yore benn jabar na doo yore ñeenti jabar moo tax faiblesse sexuelle wàllu kàttan mag ñi jàngal nañu ci parce que mag ñi ñoom amuñu woon problème bu dama na ku yoree ñeenti jabar kay tubaar fakala toog ba am juróom-ñetti fukki at ay doom kooku amul amul benn problème ñun nag ñun ñoo am problème léegi. lan moo ñu may problème mooy lu ñuy lekk ak lu ñuy lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak nu ñuy doxee ak nu ñuy waxee ak nu ñuy defee ak nu ñuy déggee ak nu ñuy royee moo ñu yàq kon min na li ñun ñoo yàq suñu bopp ndax dañoo roy dëgëraay lañ soxla woon amatul doole bi amatul ndox bu bëri do amatul. miin sey amatul man sey amatul euh, dugg ci néegu sëy xam la ngay def amatul set wecc dugg ci néegu sëy amatul déggoo ci ku jigéen ki ak ci ku góor ki sëy doog a am amatul lañ daan jàng doog a dugg ci néegu sëy amatul lañ daan naan doog a dugg ci néegu sëy amatul lañ daan raxasoo doog a dugg ci néegu sëy amatul waaye léegi royal yi la ñuy wane léegi kenn ku nekk yaa ngi wane benn po kenn ku nekk yaa ngi wane benn ndox kenn ku nekk yaa ngi wane benn benn xas ne lii mooy dëgëral góor waaye boo ko jëlee tey nekk jàmbaar boo liggéey nga nekk galas dootul mën dara waaye oustaz Mouhamed Lamine Ndao fédération de tradipraticiens du Centre Sénégal gis nga sachet baa ngi noonu loolu mooy li nga xam ne nii mooy wa mooy dimbale ku góor ki boo naanee incha allah traitement bi soo ko defee un mois mën nga toog sa giiru dund juróom-ñetti fukki at ci kanam wala juróom-ñeent fukki at ci kanam doo am benn problème mën nga am benn jabar mën nga am ñaari jabar mën nga am ñetti jabar mën nga am ñeenti jabar waaye du luy sonnal nit nit ki su naanee garab yi dafay bañ sonn wala nga bañ xiif wala nga bañ reegal regg soog a dugg ci sa biir néegu sëy léegi nag dugg ci néegu sëy nag moo jaaxal ñëpp ndax li ñuy diwoo ak lu ñuy naan ak lu ñuy raxasoo ak lu ñuy bomboo ak li ñuy xobbeekoo ak lu ñuy nettoyé ak lu ñuy nekkee avant moo yàq suñu néegu sëy ba après boo liggéey dootuñu ci man dara bu gannaaw ëllëg dootuñu ci man dara kon ñun ñooroy Eh, tubaab bi te tubaab bi noonu naa leen tubaab bi ñin ñee nañ ko waaye ñoo ko man ku génnee ka Alaaji Malik génnee ka Seexul Xadim kaanaloo bi kanami baaxil Xadim génnee ka Alaaji Omar Ndaw génnee ñeseen génnee laayeen wax dëgg yàlla yonent ba ñoom ñi daan defar lii di naan lii di wax lii di ko sant suñu seen njaboot seen njaboot kenn amu ci problème kenn ku ci nekk mën ngaa yore ñeenti jabar tey waaye ñun ñoo ngi nii benn te loogu nag suñu gàcce la li ñu indi suñu gàcce gi mooy dañoo roy kon daal gis nga kàttan mu ngi noonu préparé nañ ci ay enveloppe yoo xam ne képp ku soxla muy Sénégal Europe Asie Australia muy France muy Amérique muy Angleterre muy Espagne wooteel ci numéro bi mu sëñ Mountakha dina leen ko jox ku ñu ci woo jot ñu incha allah ci WhatsApp bi wala nga woo ñu appel normal di nga ñu jot nga yónni ñu sa adresse ñu yónnee la enveloppe bi CPI indil la ko wala ñu yóbbul la ko DHL kon daal garab yaa ngi lépp lu jëm ci wàllu wér yaram ak lépp loo xam ne mu ngi jëm ci wàllu góor siti saan hémorroïde constipation anémie rhumatisme faible sexuelle kattan 1 kattan 2 nerf asthme tension estomac traitement complet mooy lii naan wér sa giiru dund dootoo tawat dara loolu koy jar na ay millions te ñun sax laaj ñu ay million ñun ay dërëm la ñuy laaj kon sëñ Mountakha kattan a ngoog góor ñaa ni ñuy def ak Mohamed Lamine Dramé waaye nan la ñuy defee ak Fetaras waaye nan la ñuy defee ak garab yi waaye nañu xool moytu yenn yi ñu ngi yàq suñu bopp ñu xamuñu ko seet leen ñi jàng ñi xam génn ci kër kalifa yi yore lu baax wan leen ko ànd lee ak ànd ci ak yéen di ko naan ngeen di ko naan ngeen ànd jàmm ngeen bàyyi yenn yi yenn yi kat andi na yenn yi ba mënatu leen dara fu mu ne mille deux cent quarante et un personnes kenn amu ci quarante ans kenn mënu cee yore benn jabar ba yore ñeenti jabar gàcce la gàcce gi xatum kaawab la ñoo koy fajal suñu bopp bisimilah kattan mu ngi noonu kattan mu ngi noonu tabarkalla al oustaz Mamadou Lamine Dramé di leen fàttali moo ngi bokk ci fédéras fédération des tradipraticiens de santé du Sénégal waaye tamit di spécialiste ci wàllum hémorroïde gis ngeen ko pajum cosaan ak aada ci wàntam ci wàllum lasraar ci santaat bu baax a baax a baax euh, numéro téléphone yi nag mu ngi noonu ci baaru écran bi daañu ko gën a mën a lim ci kanam al oustaz mu ñu daal ñëw ci wàllu siti siti tamit mu am ay euh, euh, la yi nga xamante ay façon la yoo xam bokk na ci li nga xam ne nii eh, moom dara jiituwu ko ci li nga xam ne nii mooy mooy sonal nit ñi ci wàllu kàttan ndax enveloppe bi tey boo ko xoolee ubbi ko siti mu ngi ci biir siti nag fi lay commencé dañ naan ndoxu siti mooy ndox la boo xam ne ci biir yaram lay nekk dana andi heure dana andi weex-weex si dagg-dagg ay weex ci yaramu doomu aadama bi dana andi taab dana andi neewo dina indi tarabolle dina indi xesenaan dina indi bis dina indi waga dina indi koso-koso dina indi ràmm dina indi yeer dina indi jamaj dina indi ngal dina indi deret boo xam ne nii dafay faral di dagg di tàng waaye itam dina indi yax yuy métti waaw muy fukki façon ak juróom benn yoo xam ne nii benn bu ci nekk mën naa lor doomu aadama te siti moo koy joxe kon ke xam ngeen ni siti baaxul siti boobu nag bi ñu ko defaree sirop lay doon neex na comme attaaya waaye itam neex na comme boisson da ngay xel si dimi kaasu ndékki naan am na forote bi moo àndat yooyu yëpp dañ koy dugalaal ci enveloppe bi jox la ngay naan di forote wu yanam bi ne kekk nga ne kekk mën a xam li ngay def ca tool ya mën a xam li ngay def ca kër ga waaye itam mën a xam li ngay def ci jàkka ja waaye mën a nekk nit parce que boo wérul amuloo jàmm mënuloo dara kon daal cité ngoog al oustaz Mohamed Lamine Dramé fédération de tradipraticiens du centre du Sénégal comme ni leen ko sëñ Mohamed Lamine waxee noonu lañ koy doxalee depuis 26 ans ñu gi joxe garab yi àddina bi yëpp ñu ngi koy jël ci biir Sénégal biir Europe ku bëgg daal wootel ci numéro yi la sëñ Mountakha di jox boo wootee di nga ñu jot appel normal di nga ñu jot WhatsApp di nga ñu jot ñi génneel la benn enveloppe jox la wala ñu woo la nga ñëw jël si ko wala nga yónni ndaw mu ñëw jël si la ko kon daal mbir mi kilifa diine yi yombal nañ ñu yombalal nañ ñu ko waaye ñun tam yombalal nañ leen ko kon daal cité ngoog nañ ko moytu daraa ci baaxu ci yaramu doomu aadama bisimillah tabarkàlla moo ngi nekk noonu numéro yaa ngi noon di affiché ci baari écran bi yéen ñi yittewoo al oustaz Mamadou Lamine Dramé bokk nag ci FEDRAS fédération des tradipraticiens de santé du Sénégal euh, numéro téléphone yaa ngi noonu ci baaru écran bi 77 553 64 56 wala beneen numéro bi 70 473 82 84 képp koo xamante ni tam yaa ngi woote tam euh, rek ci whatsapp bi jotoo rek mën nga woote appel normal bu ko defee rek euh, daañu mën a jokkoo ak yow euh, al oustaz mel ni dañuy ñëw ci wàllu saan saan tamit nekk loo xam ne doy war la al oustaz saan tamit am ay ay ay ay façon ay xeeti saan yoo xamante ni ak ni ñuy duggee doomu aadama loolu tam bëggoon nañ ko xam waaw alhamdulilah parce que saan benn rab la boo xam ne nii mu ngi bàyyeekoo ci ñam yi nga xam ne ñu ngi koy lekk parce que su du ma wax ne ñoo ko indil suñu bopp waaye dafa dal ci lu ñuy lekk ñu indil ko suñu bopp lekk ko mu jugg nekk sax bu ndaw boo xam ne ni dafay dugg si yaramu doomu aadama bi am na nag bu mag bu ñuy wax teñaa waaye daal saan daal baaxul maanaam léegi sax bu ndaw lay doon dugg ci ñam bi nga xam ne moom la ñuy lekk ñu lekkaale ko wala mu sosu foofu nekk loo xam ne ni day yàq suñu deret deret bi day tàng deret bi day tuuti léegi lan ñuy indil mooy dañuy xiiboon dootuñu man dara ndox bi nga xam ne ni mooy daw si suñu yaram borom bi tabaaraka wa taala def ko ci suñu yaram ndox boobu day néew et puis day tàng et day yàq suñu ndoxu góor waaye itam léegi nag la muy mujj nag mooy dañuy nekk ku lompañ ku lompañ mooy ku mënatul dara bu ñu mënatul dara nag léegi dañuy ñàkk xememteef boo ñàkkee xememteef da ngay teyale dem ci jàkka ja teyale dem ci tool ya teyale dem ci say biir kër waaye itam teyale lekk teyale naan kon musiba rek moo fa des kon saan nañu ko moytu am nañu garab spécial moom itam dugalaale nañ ko ci enveloppe bi ni ñu koy jëlee kudd bu ndaw ngay tëbb ci garab bi sotti ci ndox mu tàng segg def meew naan waaye li kay neex na kon daal jege si leen al oustaz Mouhamadou Lamine Dramé faju cosaan ak aada depuis 26 ans asalaamaaleykum bisimilah. tabarkàlla al oustaz Mamadou Lamine Dramé yaakaar naa loolu leer na saan mu nekk loo xam ne lu doy waar la oustaz ñu daal di ñëw ci nag mbër mi nga xamante daanaka doy na waar muy hémorroïde hémorroïde néew na nga dugg ci benn kër ñaar ñett ba ñeenteelu kër te gisoo koo xamante moo ngi koy doxaale euh, hémorroïde tamit ñëpp xam nañ da nga nekk spécialiste ñëpp d'accord nañ ko al oustaz Mamadou Lamine Dramé di spécialiste ci wàllum hémorroïde hémorroïde tamit ñu ñëw tamit ci ay xeetam tamit ni muy duggee doomu aadama ak hémorroïde tamit mu mel ni bëri na ay façon yoo xam ne moo ngi koy manifester doomu aadama am na fukk am na am na juróom-benn façon siti mu ngi noonu am na fukk ak kattan mu ngi noonu moom itam am na ñaar fukki façon ak juróom-ñett léegi ñoo ngi ci émourid émourid moo am fukki façon ak ñeent. émourid moom lañ daan wax picc kajoor waaye léegi nag waxatuñu picc kajoor waxatuñu picc Saalum waxatuñu picc Dakar waaye picc fépp àdduna bi yëpp la nag li ñuy lekk moo ñu koy jox siti ak saan moo ñu koy jox léegi nag la cay mooy constipation chronique saan doogu ñëw. Siteu euh, doog a ñëw euh, émorite doog a ñëw émorite bu ñëwee nag euh, biir bi day seere ndox bu dee lay doon biir bi du métti di métti toujours e biir bi di yuuxu léegi nag la muy mujjee nag mooy dangay ngay dootoo man dara dangay faral di jeex di néew doole yaram bi di tàng sa deret di tàng ngay faral di ballonné di andi ay ngelaw yu bari ci suuf ngay yomb sonn lool ndax léegi sa ndox bi woon si biir yaram bi di doxal sa yaram ak deret bi léegi dafay commencé di yàqu bu yàqu nag day def ay mbuus si biiru doomu aadama bi mbuus bi day sol ndox ak deret ak dëtt biir bi yuuxoo nag biir bi seere da ngay gis muy wàcc ci suuf am na ñoo xam ne day génnee benn bouton ci suuf doo mën a ëmb et puis tam doo nekk góor normal doo mën a ëmb avortement daf lay yomb doo mën a am doom te itam pour nga nekk góor euh, keng góor njaay dootoo nekk góor njaay dootoo mën dara da ngay yoxam lompoñ woyof léegi nag su yàggee nag day indi dëtt ci suuf bi fi doomu aadama bi di demee duuf euh, duus buy jigéen mën na ñëw ci gannaaw mën na ñëw ci kanamam waaye daal góom lay mujjee góom boobu nag am nañu garabam spécial kaasu ndekki ngay jël def ndox mu tàng jël sasi bu tuuti la tuuti lay doon def ci ndox mu tàng mi segg naan biit bi dootul métti dootul yuuxu dootul jooy dëtt bi nga xam ne nii moo nekk ci biir bi jamono boo demee ci wanag ba da ngay gis mu sotti dëtt bu ñuul kukk yow sax boo ko seetluwul doo ko yëg kon gis nga hémorroïde opération bi seer na dem na ci bay 500000 ba 600000 waaye ñun du ñu fajee noonu kenn opéreetu ko ku bëgg daal dañ naan la demal ci Feteraas demal ci Oustaz Mouhamed Lamine Dramé mu jox la garab bi léegi nga naan ko dëtt bi génn ci sa biir yaram te la ngay fay du seer rek la njëg guru nga am sa jàmm am sa jàmm yaram ndax day téye sa bët téye sa dënn téye sa gémmiñ téye sa ndigg téye sa kattan muy góor muy jigéen day lompoñ loo nit ki tey itam day lor doomu aadama hémorroïde daal baaxul nañu ko moytu bisimilah. hémorroïde baaxul nañ ko moytu ni ko al oustaz Mamadou Lamine Dramé waxee ni ma leen ko waxee rek spécialiste la yàlla may ko ci xam-xam lool tabarkàlla euh, pendant vingt six à vingt sept ans d' mu nekk ci le euh, kon nag ñu bàyyikwaat ko xel bu baax a baax a baax oustaz mel ni waxtu bi daanaka dab nañu waaye nag mënuñoo toog te waxuñu euh, wàllu ñaan jëmale ko nag ñaan yàlla mu nekk loo xam lu am solo ci jàmm la waaye tamit ci nan la ñu mën a def ba am jàmm ak xéewal mucc ci jafe-jafe ah, jamono ji moo xam góor moo xam jigéen ndax Sénégal jamono ji wax nii dëgg-dëgg jafe-jafe yaa ngi dox problème yaa ngi bari te jàmm rek la ñu bëgg yooyu ñaan yooyu la ñu bëggoon nga baaxee ko askan wi muy góor muy jigéen. waaw mag ñi dañ daan wax jamono bu neexee jàmm jamono jàmm waaye ñun léegi bokkatuñ ci mag ñooñu ñun léegi jaa bi jaa ñaari jaa jamono jàmm jamono jaxasoo ñun jamono daf ñoo jaxase léegi waaye nag ñoo jax ñoo jaxase jamono parce dañoo roy ba jamono jaxasuñu dañoo roy ba jamono jaxasuñu mag ñi dañ daan bind ci alquranul karim ci hadisu yunus sallallahu alayhi wa sallama ci waxu kalifa diini yi ci waxu suñu maam yi faj saddum jinne lu rab seytaane àndandoor fu mu ne mooy wër ci àddina bi kër gu ne ñu dugg boo tëjee sa fenêtre dañuy dugg ci biir jaxase la ak sa soxna jaxase la ak say doom gàdd loola jaasi gàdd loola yet léegi léegi jàmm jeex na ndax bàyyi nañu alxuraan bàyyi waxu Alaaji Maalik bàyyi waxu sëñ Touba ba bàyyi hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne jinne ngoog faru rab léegi nag am ñu ci am ñu sukkandiku ci loolu nag di def lu bon di ko def ci seen seen seen kaw moromu jullit di liggéey alquran di liggéey hadiis Yonent bi sallallahu alayhi di si dugal turu doomu aadama di ko def ci seen kaw moromu jullit kooku la kooku la musiba njëkk a dugg parce que dina am safaraay àddina am safaraay àllaaxira kon nañu moytu loolu. léegi nag lañ koy fajee lañu ci mag ñu jàngaloon mooy sangu suuru siigar saraxe dinañ la bindal looy sangoo ci alquran jox la looy suuroo jox la looy siigar jox la looy saraxe nga am jàmm àndu jàmm mu ngi noonu. léegi la ci topp mooy fatu xam nga ñaan ñett façon la dafon lu lay lu lay aar jàllabu ngay xëcc lu baax mu ñëw ci yow fatu lu lay ubbil bunt yi pour nga mën a jàll léegi nag fatu boobu nag lilay lay ubbil te sa tey nga am xéwal am sa kër am say jabar am say oto am say bien yu baax am say këru étage léegi nag am na lu ñu lay jox nga di ko sangoo am na lu lay jox nga di ko suuroo am na lu lay jox nga di ko siikar am na lu ñu lay jox nga di ko saraxe kon ñaan daal mu ngi nii moom la moom la ñu mag ñi rawee Cheikhul Khadim kaanaloo bi karim yi baaxil Khadim tagg yonent bi ak ñaan ci la lii tey alaaji Malick ci la lii eh, Cheikh al Islam ci la amee lii alaaji Omar Ndaw ci la amee lii waa Laayeen Euh, ci lañ amee ndam ci kaw lislaam kon ak ñeneen ñi ma tudd ñoo xam ne ni dañ ne Sénégal ñëpp ñaan ak jàngal Alxuraan moo leen may ndam ñun nag loolu lañ tekki suuf faaleetuñu kenn bu oustaz Mohamed Lamine Dramé waxee nga ne ah wut xaalis d' accord dañuy wut xaalis kay ndax ñu mën a ndax ñu mën a reer ba suur jël suñu këruus ñaan yéen itam ñëw leen ñu jox leen luy maye xaalis jox leen lu ngeen di ñaanee jox leen lu ngeen di reeree jox leen lu ngeen di añee jox leen lu ngeen di ndekkee kon kay jàmm jaa ngi waaye nag góor ñi dañoo am ñaan jigéen ñi am ñaan góor ñi suñu bëggee ñaan am jàmm maa leen koy may nag da ngeen may fay de gaaw leen làmb leen poos bi da ngeen di jël ayatul kursi yu bind ko juróom-ñaar fukki yoon jël wayin yëkkaat la si ba mu jeex nga bind ko juróom-ñaar fukki yoon nga jël laqat jaawakum ba mu jeex nga bind ko juróom-ñaar fukki yoon nga jël warad laaw la si na kafaroo bi xay ba mu jee ba aayee ba jee nga bind ko juróom-ñaar fukki yoon lii mooy njiglaayu góor yi sëñ Muntaxa suñu ko defee naan sangu am jàmm kenn duñu dóor kenn duñu saaga kenn duñu xas duñu dugg kaso kenn duñu jam paaka kenn duñu tiire fetal dinañ lekk ba suur naan bu mbandi war suñu oto tokki suñu eh, jabar ndékk añ reer duñu yëg lu xew ci àdduna bi jafe-jafe àdduna bi am ci àdduna bi ñun duñu ko yëg lii la mag ñi wax waaye li mag ñi wax gëm ngeen ko yaakaar naa da ngeen ko def gëmu leen ko du ngeen ko def man bu ngeen man man bu ngeen ma weddee mag ñi ngeen weddi man kon jarul ngeen maa weddi ku ci weddi rek mag ñi ngay weddi jarul nga may weddi parce que ci mag ñi laa ko mag ñaa ngi may déglu mag ñaa ngi may seetaan mag ñaa ngi may toppandoor loolu mooy góor ñi ñi seen wàll ngoog da ngeen di fay na fay bi ñëw aywa jigéen ñi ubbi leen seen nopp laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimina 1111 ñu bindal ko ñu bind ko wa fii du amri ila laa laa basinu bi lay baadi 1111 maasa allah laa xawata illa billah naasi 1111 laysa laa min duni laahi kaasifatun 1111 laa hawla wala quwwata illaa billaahil aziim 1111 laa taxaf na jonta min qawmi saalimiin 1111 jaa al haqq wa saaqa al baatil inna al baatila kaana sahuuqan ñu bind ko 1111 maa ji'tum bihi sirran inna llaaha sayyubtiluhu inna llaaha laa yuslihu amalal mufsidiin 1111 laysa laa min laysa llaahu bi kaafin abdihi 1111 innaa kafaynaaka al mustahzi'iina 1111 lii mooy wàllu jigéen ñi ndax jigéen ñi kat yéenay suñu yaay yéenay suñuy baay yéenay ñu jur yéenay ñu yaakaar su ngeen baaxee ñi baax su ngeen baaxu ñi mel ne neen yéen a moom ñaan bi bind leen ko ndox saafara naan jox seen doom jafe-jafe bi am ci àddina bi ñàkk a xaalis gi xeex a xuloo yaama ne maane la jàppal bàyyil mag ñi xamuñu woon loolu yooyu itam delluwaatal cosaan dellu ca mag ña ndax lii mooy cosaan soo ko defee incha allah jàmm ak salaam ngay am yow ak sa doom du ngeen taw a dara du ngeen yëg benn jafe-jafe ci àddina bi da ngeen am jàmm am salaam lekk bu suur naan bu mandi hôpital du ngeen fa taxaw am wér gu yaram kon daal al oustaz Mouhamed Lamine Dramé mu ngi noonu góor ñaa ngi noonu dégg ngeen jigéen ñaa ngi noonu dégg ngeen faju cosaan ngi noonu dégg ngeen lañ ci wax ci wàllu saan dégg ngeen lañ wax ci wàllu émori dégg ngeen lañ ci wax ci wàllu kàtt waxtaan dégg ngeen lañ ci wàll lañ ci wax ci wàllu jafe-jafe bi yëpp nga xam ne day daal ci kaw doomu aadama bi dégg ngeen ko ji góor daal war naa yore ñeenti jabar jigéen it war naa am 53 cent régalam doo ko dagg léegi nag yéen a ngi may dégg amu ci kenn ku ci am 53 cent di gis regal loolu ñun xamuñu loolu 53 cent la régal doo ko dagg yéen ngeen am 35 ans 45 ans kon jog leen bi ngeen jógee fa ngeen jëm mooy nañu dajee ak yéen ngeen jox ñu njëg guru ñu jox leen haddiyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp jëliñu ju saytum xayran wa ko faytum daran wala laqaytum fi ma baqaytum sarran alhamdulillah tabarkalla al oustaz Mamadou Lamine Dramé tabarkalla ci xam-xam bi pajum cosaan ak da aada tamit ni leen ko waxee dem bokk ci fédéral fédération des tradipraticiens de santé du Sénégal ñu di ko sant ci expérience bi nga xam ni 26 koy woy te jotu leen ko ci whatsapp bi mën ngeen ko woo appel normal ñu di ko santaat bu baax di ñaan allahu bur bi subhanahu